jàkkaarloog euh, sëñ Ibrahima Kane Ibrahima Kane nag yore restoration bi nga xam ne moo aju woo lépp loo xam ne ci màggal gi la kon sëñ Ibrahima ñu bëggoon tuuti ab leeral rek ci wàllu restoration bi euh, ñaata waañ ngeen amee waañ yi fan ak fan la ñuy yóbbu xéewal yi ci gan ñi nga xam ne mooy gan Serigne tubaay yi ngeen xam ne moom ngeen war a mbokki taalibe yi ñuy déglu ak seetaan. di ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké moom Cheikh Mamadou Bachir su borom yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem njabootu sëriñ Touba gi waaye di nuyoo ko ziar jëwri ni comité de organisation bi muy Cheikh Mamadou Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khader Mbacké di nuyut sunu coordinateur sëriñ Ousmane Mbacké Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy coordonné mboolem commission yi yor organisation màggal gi ak jëwri ñi nga xam ne ñooy jëwri ni commission organisation bi Euh, te sous commission bi ma yor doon ci benn bànqaas ndax ñeenti sous commission la waaye ñu am ay coordonnateurs yuy coordonné sous commission yooyu muy Serigne Mbacke Madina ak euh, Serigne Abdoulahad Boussa Moutalib ak euh, Serigne Ahmadou Ndiaye ngeraan ak Serigne Ablaye Diop. ñu seq nag ak liggéey bi ak daayira mu xàddimatul xidma bi nga xam ne ñoo yor liggéey jumaay Touba ji. ñoom it ñu boole nu ñu yore lépp lu jëm ci wàllu accueil bi ci biir comité bi ci biir commission organisation bi saa su nekk lépp lu ñuy wax eh, dañuy concerné ñun ñëpp moo tax ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di nuyu mboolem jëwriñ ñu ko seqal eh, di nuyu waa eh, télé bi ñuy jàkkaar lool sëñ Faasa Mbay ak sëñ Alaaji Taal ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi. juróom-ñaari waañ lañ am. bis bu nekk nag quinze safar ba dix-neuf safar bis bu nekk daa am ab lim bu ñu togg maanaam par exemple tey ma ne la dix-huit safar bii ñu nekk liñ ciy togg ci añ lim bi ci ceebu ganaar wala ceebu yàpp xar wala palaate ganaar wala palaati xar wala ceebu jën yow yëpp dafa am lim ak ñaata miche war a àndal bu ci nekk daa am ab lim euh, waaye daal li ñu bëgg wax mooy. li Serigne Touba waxoon ca wooteem ba ne ma na ma ñëpp sant la yàlla ci bis bi bu dikkatee fukki fan ak juróom-ñett ci safar bu dikkatee na ma ñëpp sant la yàlla Serigne Mountakha bi mu dikkee dafa dëggal wax jooje da koo dollee dëggal barkeeloo ko ci la wajuram yi doon def Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne moo ko woote woon fii ci Touba waaye ci Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdou Khader ba ci Cheikh Saliou Mbacké Serigne Alaaji Baare mi nga moo taxawal comité de organisation bi ak Serigne ci Mokhtar yàlla na suñu mën yokk seen i leer te taas ndax euh, lu ci nekk rek liggéey Serigne tubaa nu mu tàmbalee dee ko xool waaye fu mu jëm moom doo ko xam ndax euh, nekkoon ci ñetti waañ ñeenti waañ juróomi waañ buñ demee ba ci juróom-benni waañ ba juróom-ñaari waañ kon liggéey bi moo moo moo yokkoo noonu. wilaya bii koy organisé nag euh, waajtaay la loolu du du njàmbaar ndimbal la ndax dëmb rek mel na mbokk ma koy laaj nan ngeen def ba togg yi du am benn faay wala yu mel ne man ne ko loolu tare la. demb lañ ko jàngoon loo doon tub dongam doo doon ab sëriñam mu ne ma dañoo gis ne day am ay gan yu fii ñëw jóge ci yeneen réew ma ne ko kookoo dañ ci sant yàlla di sant sëñ Mbàkke Soxna Lo danoo waajal ba gan ku ñëw foo waayu mën a jóge ci àdduna soo dikkee danañ la bernde ak looy sa luy sëg lekk rek dañ la bernde kooku moom yenn xam ngeen loolu ci sëñ Mbàkke Soxna Lo Moussa am genn gan di jëlib genn kenn ku koy toggal sëñ Faasa Mbay mi nga xam ne fu mu mës a jëm moom moom ànd xam ne sëñ Mbàkke Soxna Lo mos su togg jëlib toggkat ko indi këram moom palaat bu mu gis tey ci internet bu subaa mu wax ci soxnaam yi kenn na ko kaay togg ko bu dikkee mën la jëlal defal nangam ak nangam ak nangam toggal li ma la wax la dafa tàmbalee fi yem fi rek bu ci dolli dara soo ko yekkee ñëpp na li fi gi togg foo ko jëlee maa ngi doon wax démb benn palaat bu senegal gépp di wër di wax te kenn xamagut ba léegi nu mu demee muy palaatu cocktail géej yéet ak keccax ak ay picc ak ganaar dàq jàpp ak ay xarak nag lépp la ñuy def ci biir àdduna bépp di yéem togg googu te sëriñ bi ci internet la ko daal woo ci waa këram kenn ne ko toggal ma ko ñooñee mu doon toggaloon ñooy togg ci toggi màggal yi mu soxna Fati Xari moomam mooy waañ numéro un soxna May Mbàkke doomam mooy waañ numéro deux soxna Bigé Ndiaye doon soxna Serigne Basirou Ñaan bu wilaaya mooy waañ numéro trois soxna ci babaabu moomam nga xam ne lépp lu mu xam moo borom këram ci kër gi la ko xamee mooy waañ numéro 4. soxna tuuti loo doomi sëñ mut loo mber yi moom sëñ munu saama mooy waañ numéro 5 nekk ak moom. waañ numéro 6 soxna Khady Mbakke moom sëñ Mbakke sonloo ak yaa soxna Jaxate moom soxna Mbenn Gaabu waañ numéro 7 mooy so sëñ mut loo moom sëñ mut loo mber yi yàlla dogal na lépp lu jëm ci togg étranger yi foofu lañ koy toggee ñooñu nag tooguñ toog rek ñu la toggal leen ceebu jën wala toggal leen ñu di ko togg déedéet dañ leen jàngal togg gi démb tey soog a ñëw kenn ku ci nekk fi ñu toll tey gisuñ sëñ Mbàkke Soxna waaye ñu ngi sant baax sant yàlla mi nu boole woon ak sëñ Mbàkke Soxna wilaaya nag lii euh, sëñ Mbàkke Soxna moo waajaloon ay nditam daa daa waxoon ne des na tuut ci kanam ku am say doom ak say jigéen te defaroo leen saytaan dana leen këf loolu moo taxam def wilaaya fukki section ak ñeent la wilaaya am fukk yeeg ñaar ñëw na ñaar section ñoo ci ñëwut dañoo am gàllankoor moo leen tey ñëw ba section Gàmbi nga xam ne am réew la ñëw nañ ci màggal fukk nit ak ñeent jóge nañ Gàmbi bokk ci organisation bi ñeenti téeméeri ak juróom fukk ñooy ñi nga xam ne ñooy organisé bokkute coordinateur yi man ak ay bas ñaan ak Amadou Ndiaye bokkuñ ci loolu ndax ñun toggunu yëkkunu jëlunu bool tegunu bool mais xale yi nga xam ne ñoo toll ci liggéey ñeenti téeméer ak juróom fukk lañ ci jël jëwri ñi mag yëpp ànd ci liggéey kon liggéey bi dañ ci sant yàlla ndax sëñ Mbàkke Soxna daana wax ne des na tuut ci kan bi képp ku bëgg a liggéeyal liggéeyal yàlla liggéeyal sëriñ Touba am xelam dana ma daj waaye man de bu ma am xelam dajee man dana am xel yéen wilaay yii lay daj kon li bis bii ñëw na ndax 2008 da ba ñuy coordonné ci mm, taxawal comité organisation bi ñu woo sëñ Cheikh Mara mu ne ci Côte d'Ivoire sëñ bi ne ko sëñ Bass ne ko yow laa dénk organisation commission organisation mu ne ko waa baax na ba mu paree la daal di woote ne lii ma def loo ngir jëmmi sëñ Touba wilaay laa koy àndal daal ñuy woo wax ñu ko wax ñu ni ko bëggee delluwaat sëñ Moussa wax ko ko sëñ Moussa am sëñ Mbàkke Soxna la yàlla ko suñu borom yàggal te ko mu woo ma Cheikh nga moo ma jël si sama kër ma ñëw mu ne ma Ibra Kane sëñ Thiamaram dafay ñëwoon bëgg ko ko organiser màgg damaa bëgg nga dem soo demee mu wax leen ni mu ko bëggee te bu bu leen ko waxee ba noppi nag fexe leen ba bu mu dellusiwaat na doon ndigal envi soo ko laajoon baat bi la jëfandikoo woon na doon ndigal envie sëñ Moussa Mohamed yàlla ko suñu borom yàggal te wér ko lii la ma waxoon bi ma ñëwee wax sëñ Camara ne ko sëñ bi nag nee na bul di ko wax nee na loo soxlaat na nga ñu ko wax mu ne ko ah, loolu sax la may dutuma leen ko digal màggal gaa nga bu jub te na ngeen ko waaj màggal gi jub rek sëñ bi ne tàmbali ngeen réunion ñu ne ko pare nan teraanga yi mi ngi dekk ci résidence bi wala kër sëñ Touba gi wala fan la ñuy yóbbu teraanga yooyu ñuy defar mi ngi dem ci résidence bi bu bii jàkkaarloog jumaa ji ak résidence bi ci Daaru Manaan waaye daa am yeneen barab yu ñu dalal ay nit te dañ fay yóbbu ay añ moo xam ay kër la yoo xam ne euh, lu mu néew na da nga fa juróomi bool yee fukki bool yee xeet yooyu la dafa dañ ko am. ndax kër soxna su gaawaan dañ fay yóbbu ay añ ndax waa secrétariat bi liggéey ak ñañ fay liggéeyloo ñoom ñëpp dañ fay nekk sa dañ fay yóbbu añ sëriñ Cheikh lii ba mu koy so def ne xool naa yoon yi jëm ci borom mu tal ne nooy bind fi gisuma ci wenn wu gën a gàtt wu gën a gaaw ak yàlla moo tax man di ko muy daayira kon buñ dee liggéeyal yàlla ñu ne dañuy boole wilaaya ak xidma war naa mën a yomb ñoom ñooy dalal bu ñu dalalee ba pare wax ki jiite hébergement muy sëriñ Basiru ñaan ak Cheikh Diop ndigal mi yore loolu ne leen bâtiment sangam chambre numéro nangam def nañ fa euh, délégation sàngam ñun nag bu ñu toogee kilifa diine yi lañ def ak yeneen kuréel yi ñooñu ñuy jox nag ñun buñ dikkee buñ leen dalalee ba noppi wax ko wilaay wilaay yóbbu fa seen i xale ñu toppatoo leen ñee ñoo yor dalal bi waaye wàllu toppatoo bi ñoo ko yore lépp nag ñu ànd ngir liggéeyal yàlla yonent bi Serigne Touba. Eh, léegi baat yooyu tàggat. waa bi ci jëkk daal dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun di jaale sunu yaay sunu bajen sunu Serigne di soxna Bali Mbakke moom Serigne Cheikh Awa Balla. waaye di wajuru sunu sëriñ suñu xarit sëriñ Cheikh Abdou Mbacké mi xam ne moo jiite commission communication bi moo jiite commission communication et culture yàlla dogal na man suba teel la ma woo wax ma xew-xew boobu ñun ñëpp ñu am ci tiis waaye ñu delluwaat euh, sun borom lépp ndax moo fendi woon te tàgguwunu kon bu ko yóbbu bu ko neexee doon tàggu waaye ñu ñaanal ñi fi bàyyi muy sëriñ Cheikh Abdou Mbacké ak soxna su mbakkee sun borom yàggal leen fi ba naal yu seex na may seen maam ak soxna Baali seen wajur naa loon ñoom eggale ko fan ko jëmee di sand bu baax it Serigne Faasa Mbay fu wilaaye nekk Faasa nga fa fu mbooloo mi nekk dana wane ne saa gaa yi ngi nii dana leen jël wane ne saa gaa yi ngi nii loolu nag euh, kóllëre la ñu ngi leen sand yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kon loolu lañ leen dikkaloon ci li nga xam ne moom mooy Kafisem lépp loo xam ne soxla nañ ko ci euh, lu ajowoo ci lii nañ dem ci site bi ila touba point net boo fa demee incha allah ne nag avant ngay dugg abonneel ngir lépp loo xam ne lu fa dugg la ci image wala lu man doon nga mën koo teel a jot ci sa portable incha allah ñoo ngi jégalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.